Aliou euh, Salam Diallo nuyu naa la. fay naa la Boubacar Diallo. ci loo nekk dëgg-dëgg. sant Serigne Saliou saa su ne. mbaa yaa ngi am jàmm. jàmm rek ak salaam. waaw Salam sa album bu bees bi naka la tudd. Gisa Mbaq. Gisa Mbaq yow lan mooy Gisa Mbaq. Gisa Mbaq tëgg la boo xam ne xale yëpp fecc nañ ko ci Goana bi. muy loo xam ne ay vibes la yoo xam ne ñëpp dañu xam Salam Diallo ci tëgg ak woy ak taasu sabar gi di dem ànd ak làmmiñ bi yaram wi mais làmmiñ bi day tëgg. waaw lu muy tëgg làmmiñ bi. ah làmmiñ bi euh, an am na fi benn xale bu ndaw non amul de ah. ah xale bu ndaw am na fi kay. mi ngi noonu xale bu ndaw a ngi noonu. ah ah. waaw non guddi na sinon ma jël ko dafa guddi heure bi dafa guddi. waaw nan bàyyi noonu nan bàyyi noonu. ah acca l'essentiel daal gis a mbaq ku xool clip bu bees bi tànn beer. waaw gis xale yi ñu ci def. waaw mais yow <laughs> doucement tànn beer boobu laa jëm. tànn beer boobu yow xale jigéen yooyu foo leen jëlee da nga leen loué. xam nga ñëpp dañu toog ay 5 ans 6 ans 7 ci ginnaaw tànn beer amatul fenn. boo gisee tànn bi da ngaa seetaan. Dakar na door pas TFM Dakar ne dort pas. <laughs> waaw ah, dëgg <laughs> ma toog Europe ci sama tournée bi samedi ñëpp di seetaan Dakar ne dort pas. Eh. taal ay lamp gel yi sañse eh. cotisé ma ne mais lii il y a dix ans quinze ans de cela doon naa ko tëgg. dëgg dem ba amatul ma dekkalaat cosaan def clip bi def tànn beer. mais xam nga lëmbal ci ci ne. waaw gëj naa ko gis ca Fatou Lawbe ga waaw Fatou Lawbe boobu woon boobu noonu boobu mu njëkk a bu njëkk Papa Gajaga Papa Gajaga yow ca kanam Papa ga yow ca kanam waaw laa a gis boobu lëmbal moo tax ma indiwaat ko yaa yëpp Salam Diallo waaw yow xam nga procureur rek ngay seet sama xarit la <laughs> procureur rek lay wër ndax lëmbal gi nga lëmbal ci clip boobu ma ne ah. danoo nekk ci adduna adduna ah. war a neex ku fi ne da ngay def neexal yëfu adduna lëmbal ah. sunu cosaan la Lawbe moo ko moom farwu jar yaaba sandiaay ak ay mbabas ñoo ko moom sàcc ñu ko fenn jéggaan fi arène bi mi ngi fi ak ay fecc américain yoo xam ne dañu salte sunu secc moo leen dàq dañ koy jàpp moom la moom. tàcc leen ci lëmbal ji boog. yow gaa yi ngi tàcc lëmbal ji di. moom la ñuy wër. lëmbal la ñuy wër. xoolal ki ni muy lëmbal ga ki sa ki sa ki sa ki tànk ba ci kaw caxagun ci ko càcc. ah sama junn bi junn bi a caxagun tàcc. waaye ah. xale eh. day day day la gis bu ndaw bi naa xale bu ndaw bi yow. mais xale bi dafaatal dafaatal dafaatal ma xool. dafaatal sama ñaari junni. a jaxagun ci ko jaaj. sagu gu ko sagu mbax gin a jaxagum po ko jaaj. Ah. soo fi dammee ngay nuroo kir naa. <laughs> Salam Diallo que nous allons apprécier sur le plateau de Dakar ne dort pas. waaw alors Salam. Mhm. yow da ngay joué tey ci guddi gi. waa looloo tax du ma mën a playback ndax induma sax CD bi woy bi nekk fii donc euh, damay tàggu ñëpp di gërëm di féliciter musiciens ak artistes sénégalais yëpp. ci 21 juin bi ñu def fête de la musique. dëgg la euh, di félicité super étoile sànq dama toog seetaan leen Mbaye fay Faye ànd ak ay xaritam Youssou Ndour nekk fi waaye ñëpp gis nañu Youssou Ndour. donc je les félicite kontaan na trop bi ma ko seetaanee j'étais très content. Hmm. Sénégal yàlla na fa jàmm am maa ngi dem léegi joué ji Madison. dafa gudd mais mais mais foog nga may ñu dara. non c'est que euh, Madison ah, laay joué nga may ñu dara même boo ji Madison. DJ ko sama jund bi salaam Diallo Ndeye a leen bi moo dul loola Salam Diallo exceptionnel ce garçon euh, Salam dañ koy bàyyi mu daw Madison dafay jouer ji en live alors euh, comme dafa am spectacle déet Salam déet bul jël 500000 yi defal ndànk bul jël 500000 yi Salam Salam defal ndànk Salam defal la xaaral Salam déet. salam be asalo asabombe asalo asabombe ay mu jëm fale ay mu jëm fii asabombe sigi gigi na ay caxagun juko tac tf wala caxagun tac salam bu jëm seen caxagun tac da nga naan TFM tac fuy seen tac be salam gis nga gis yi oh. xoolal gis nga téléspectateurs yi. Ah. ñoom ñoo koy gagné. Ah. ci fête de la musique bi. Ah. képp koo xam ne yone nga SMS. Euh, da ngay bind son. son S O